je crois que la nouvelle convention qui est, aujourd'hui euh, donc euh, paraffée entre le gouvernement, en tout cas à partir de la qui sert de socle donc d'accord avec euh, le, gouvernement français, à mon avis, est une base qui, rend, qui donne une vie à l'organisation, donc à la, convention. Et moi, je pense il y a, il y a donc que nous sommes venus et nous sommes mis en mode réception pour bien percevoir donc les questionnements qui se posent au niveau de la diaspora, et je crois qu'il y a des évolutions parce qu'il y a un dialogue qui est établi, aussi bien au niveau des presse que la cette sociale. Il y a la prise en charge de la question de, la maladie. Donc il y a une question fondamentale et qui est intégrée dans la maternité. Le coût de la vie n'est pas le même entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, comment vous allez calculer la retraite de ces Sénégalais qui ont travaillé toute leur vie en France et qui doivent repartir au Sénégal Je pense que les bases de calcul sont les mêmes. Le problème, c'est les niveaux peut-être de rémunération qui ne sont pas les mêmes, mais les bases sont les mêmes. Mais je pense que l'IPRES doit tenir compte des carrières. Parce que la question, c'est la question des carrières. Et une fois que la carrière est bien établie, une fois que les documents ont été bien pris en compte, celui qui a travaillé inversement en France ou au Sénégal, à mon avis, est hébergé par la Convention, qu'il soit français ou sénégalais. Et donc l'intérêt, c'est peut-être aussi d'utiliser des instruments de mesure qui ne pénalisent pas donc, le donc, parce que je pense qu'on a entendu ici, c'est des personnes dont les carrières ont été omises dans les calculs. Et ces personnes peuvent revendiquer à juste titre donc, ce type de carrière qui sont, qui, à mon avis, qui sont générateurs de revenus. madame Massok Il y a PCA euh, madame y a êtes président PCA ou caisse de sécurité sociale et je nag da nga délégation de France, fi France euh, accord bi nga xam ne partenariat bi nga xam ne Sénégal signé na ko ak France ci lu jëm ci euh, kii sociaux intérêts sociaux yu yu ay sénégalais lan mooy bees bees bi ngeen indi tey. waaw bees bees moo de xam nga waxtaan la xam nga convention bu yàgg bu judd 74 am fanweeri at ak lu topp dañ ko war a xool problème bi moo di gëstu ko ñëpp d'accord dañ ci war a gëstu am na ci yoo xam ne dafa war a dox maanaam ci wàllu. li ñuy tayle di ko jox euh, maanaam euh, euh, diaspora bi allocation familiale yi maanaam bon donc ñu yokk donc 40 pour cent ci niveau bi donc loolu nekk na la am solo mu des nag tamit laaj nga xam ne moom la ñuy laaj nga xam ne lu ci bëri ci ñàkk xam la sawuñu leen pour ñu xam donc la ka lan mooy seen droit ak jan la ñuy amee ci jumtukaay yi loolu moo tax ba réunion bi nekk du am solo parce que dana tax ñu weccoo ñu wax jël jox leen ñu wax delloo ñu ñu xam nag ci lan lañ jub ci lan lañ jub donc loolu moo tax ba réunion lël bi lu am solo la te yaakaar naa ne diaspora bi jàngal nañ ci lu bari xam nañ tamit aussi yan jumtukaay la ñu war a dugal pour droit yi nga xam ne am nañ ko ñu jëpp parce que dafa am liggéey tubaab loo xam ne ay góor document administratif dañ koy wax ak ci nasaraan moo tax ba base yooyu lañ leen di woon leeral leen ko ndax lañ koy def ak fu teg te bu ñu ko tegee et presque dafay obligé donc bu di retraite bu dee tamit bon ñu obligé jël compte donc seen seen seen seen seen soxla parce que nee nañu 40 pour cent la ñuy yokk maanaam ça veut dire que dafa tardé woon donc à partir d'avril 2016 ça veut dire tarte bi dañuy dem nga dabb. waaw xam nañ ni coût de la vie li ñuy wax dund bi bokkul diggante France ak Sénégal tey jii ñooñu seen i seen droit ci lan ngeen koy calculer ci ban barème la. waaye yaakaar naa xam nga ñoom seen problème moo di carrière yi da ngay tàmbale liggéey Sénégal dellu si France donc duñ jël sa carrière ba de wala nga toog ñàmbali France liggéey Sénégal duñ jël sa carrière maanaam liñ la war a boole loolu lañ ne lañ leen sa naka lañ koy defee bu ñu ko xasee ba def pare calcul bi moom benn la donc dañuy calculer rek pension bi en fonction donc li nga xam ne moo di carrière bi appliqué ko nag liñ naan salaire de référence loolu moo nekk lu am solo même bu salaire yi wutee feeg fële yaakaar naa lépp solo moo di carrière bi en tant que tel ñu koy rétribuer ci jàpp ci tenant compte de donc des base base calcul yi nga xam ne mooy base yi nga xam ne mënta ñàkk pour que retraité bi am solo mu nekk des retraités français mais problème bi moo di carrière am daal ñu bañ koo fànq dara bañ cee fell dara jërëjëf